combat grand combat fils de Sadio ay ko ginnaaw la at uus garga parcelle ndeysaan ñoom ñaar ñëpp biñ fi mujj ci defet lañ fi jóge uus si moo ko waaye fils de fils de Sadio biñ fi mujj bukaan moo ko daanoon bukaan moo ko daanoon ndeysaan tey ñoom ñaar ñëpp li lamb nangu ak li bañ ndeysaan combat yërmande la combat yërmande la maa ngi ziar maam Thierno Ndamal Daaru muy borom daaru maa ngi koy ziar bu baax a di ko jox wàccu waayam kenn du Aline Pack Ferraille Aline Pack Ferraille maa ngi koy ziar di ko jox wàccu waayam ziar saan te Sadio saan ñaari xale yaa ngi la ñoom ñaar yëpp dañoo xas aspect ginnaaw ba jee Ouss Garga mi dox si kawam Ouss Garga ñoom ñaar xeex saan Ouss Garga laaw na léegi saan fii te Sadio ak Ouss Garga fii te Sadio ak saan dooral ma door saan ay doxay tooñ fils de Sadio Mamour yaa na si kawam Ouz Garga day coxaas waaye saa mu coxaasee fils de Sadio day dox si kawam ndeysaan ndeysaan Ouz Garga ak fils de Sadio ñu toll moo ginnaaw Ouz xees ba mel ni man ndeysaan tey saan door ko droite te Sadio dox ci kawam tey saan tey saan naa la classico commencé waat na Pikine Parcelles Pikine Parcelles ba tey dër bi du mës a jeex tey waaye Boy Jules Agago tey Ouz Garga fils de Sadio ndeysaan ndeysaan mi ngi dox si kawam moom Ouz Garga Ouz mi ngi dox kawam tuuse na ko fils de Sadio tuuse na ko arrêté na ko arrêt gauche bu dal door na ko moom fayu na Garga fayu na ndeysaan ñu xeex ñoom ñaar ñoom xeex xeex bu jaar yoon ndeysaan na saaku waaw da koy am na benn avertissement arbitre bi sifflé waat arbitre la waat na Fils de Saly us Garga Fils de Saly us Garga ndeysaan saan Fils de Saly us Garga ba tey ñu ngi si yoo fa bëgg a yooru pour jàpp soo wala Fils de Saly bëgg a yooru pour jàpp ndeysaan us Garga ak Fils de Saly Sa Sadio def na laaw dox na si kawam te Sadio dox na si kawam mais Ouss Garga fils de Sadio ni ngay maamee ba wóor na fils de Sadio fils Garga fils de Sadio ak Garga ndeysaan ngi damante baaraam ñoom ñaar laaw na ko Zoss Garga day xeex yang bu takkale dem dem latéral Fils de Sadio Zoss Garga saan Fils de Sadio Zoss Garga ñu ngi si ndeysaan Bébé Garga mu ngi dox si kawam waaye Fils mu ngi dem latéral rek Fils de Sadio us Garga door na ko day dugg xeex gennaat day dugg xeex gennaat moom moom us Garga ndeysaan ndeysaan us Ouss li muy xeex jaar na yoon tey tey ko laaw fils de Sadio ñu ngi si ndeysaan fils de Sadio ak Ouss Garga fils de arbitre nee na nee na Fils de nee taxawal bëre Fils de Sa Ndiaye Ouzkang laaw na ko san Fils de Sa Ndiaye toog si kawam dóor na ko Fils de Sa Ndiaye Ouzkang ba tey ñu fils de Sadio us garga jam na ko mu replié fils de Sadio us garga san us garga san jàppante nañ jàppante nañ ñoom ñaar san fils dafa mel ni fils de Sadio li mu bëggoon am na ko daa mel ni fils de Sadio li la bëggoon mais est-ce que na Fils de am na ko. daa mel ni. mais relance soo xoolee jàppee ko arrangé xeex bi arrangé wu ko. ndeysaan. ndeysaan. Fils de Sadio. Sat Us Garga. dooral ma door bëtt na ko bañ laali na ko lu li xaw Us Garga daan na ko Us Garga daan na Fils de Ouz Garga daan na Fils de Sadio